TDKC 313 Touba Daaru Koso communication di kër gi teewoo lépp lu jëm ci wàllu téléphone portable ak i accessoire am wala mbirum électroménager moo leen di gunge fii ci académie Minane ci màggaluk Touba atum 2019 di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd ak wér. ginnaaw ma sante yàlla julli ci Seyduna Muhammad alayhi salawaatullaahi yësal sama njëbal ak suma kóoluteef ci xaadimal Moustapha ñëw nag siyaare sunu sëriñ sunu yaakaari tey ak ëllëg muy sëñ Muntaxa Mbàkke ibnu Cheikh Mamadul Bachir ak sëñ Moussa Nawel mi nga xam ne moom la ma yàlla booleel mu taxaw fi taxawaayu sëñ Moustapha Bachir mi nga xam ne mooy suma sëriñ ma am mbégte lool ci dalal yiñ ma dalal waxtaan ak man waaye soññi ma ci liggéey bi dégg nga ko ni ko sëriñ bi waxe mu ni li mu bëggal boppam rek moom la ma bëggal loolu nag da koo dëxëñ ci wax joo xam ne waxoon na ma ko bi mu toogee ci lalu sëriñ Touba bi ak taxawaay bi mu bëgg ma taxaw ko taxaw ko ci réew mi taxaw ko ci wetu président de la république loolu mu ma digal nag président xam na ko xam naa ko jàpp nañ ko moo tax ma dëxëñ ko ndax daa xat ma xamal ko ni lim ma digaloon moom rek ci laay ne li mu bëggoon ci ma taxawe ne noonu rek laay taxawe président de la république dama koy jàppale sans réserve sans condition ci liggéey bi nga xam ne bii moom mi ngi koy liggéey te moom mu yéene ko mu réussir ci loolu loolu bu ma ko waxee dolli naa ci soxnaam di ko ñaanal ñaan gu rëy gu wér ci bis bi ngir taxawaay bi mu taxaw ci lislaam te mësu cee yax-yax yi fii ci Touba am na ñaari jumaa yoo xam ne xam naa lamu ca def benn bi mooy jumaa ji nekk ci ndaam te nekk ci kër sëñ Sam juma jooju def na ca alalam aku ñaqam ak jungaabu waaye taalibe yi nga xam ne ñoo nekk Touba ak nekk ci dëkk yi nga xam ne taataa yi def cee bari dafay yëkkati alal ju dul jeex def ci kon taxawaay boobu bu dee am nañ soxna soo xam ne si mi ko taxaw ngir di ko jàppale borom këram ñëpp war nañ koo san wax ko ba ñëpp xam loolu TDKC e 313 Touba Daaru Koso communication di kër gi teewoo lépp lu jëm ci wàllu téléphone portable ak i accessoire am wala mbirum électroménager moo leen di gunge fii ci académie Minane ci màggalu Touba atum 2019 di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te ànd